ngir am ay xibaar yu leer te wóor ak lépp lu xew ci actualité nationale et internationale Abonnez-vous ci cette chaîne bi di ASG Production الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن شكر جوالي أنه قد ساقني لوطن به نفى ما عاقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم صلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا هل الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى وأجل عن أمة خير مرسلين وفرج عنهم جميعا يا عليم وارحم وبارك ثم عافي كلهم ونجهم ودبهم واغفر لهم وجعلني يا رب من أعظم العباد أن لك حظا ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك وجل حياتي ومماتي في السنن والفرض والمندوب سرا وعدا وجل مماتي راحة لمن نصبوا ومن جوى ومن غرام ووصبوا وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقددا مقبولا ومسجد اجعل مسجدا مباركا وزيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هادك مريد ومنفعة لكل هاد مذنب ومن فعل عن كل عاد مجرمين وحجة لمن بضعف اتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومدركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأرضه واجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا داج الأسواء والأقدار بالمتابات فكل سوء داري واغفر لمن بنى بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا وتجعل هذا الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا اجعل أطيب الحلال في العذر واليسر على توالي وليجد فيك بعلم ينفع بعد الصيد بقلب يخشع وليا في دعاء يسمعون مع القناعة بنفس تسمع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وحاسب لك نفس تدرك أبد علي مع جملة أهلي يا صمد واضرب سرعة قاد حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا وتدخلني جميعا في مكنون غيبك واهدمنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والزهد والورع في الدهور ومسكن الله أكبر بدق وورعا wa سنة ومنجا من بدعا وجعلوا دأبا مكان التعلم fikrati wa tafahumi fi li fi nekkoon ak li fi nekk tay bari wul ñuko wuté donte am na waaye bari na ñu fekk ñaar yépp at yu ci ginaaw rek bokkon na pawukay bi gëna reuy ci gox bi ñu nekk muy Mbàkke ak Touba. waaye ndekete la sunu boroom waxoon ci alquran rek ne lépp may boroom te loolu muy li wér lu mu jëlagul ak lu mu jël rek moo fi am waaye fii kenn ku ne xam na ne la fi nekkoon ak lu fi nekk te wuti na kon dafa dellusiwaat rek ci boromam niñ ko mën a waxee noonu waaye yàlla du ñàkk dara ba koy amaat waaye waxin la jëmm ji ko def nag te ji bokk ci ji mujj ndéegun yàlla na ubbi yeneen yu bare bare bare bare bare te ñu fekk kenn ku nekk xam na liggéeyam ñu bari nag xam nañ ko ci ubbi juma ak waaye lu baax la waaye du nekku ci loolu rek ay junni junni junni junni nit yoo xam ne suñu borom dogal na seenug dund ci wàllu li ñuy xéwloo ak seenug wér-gu-yaram ak seenug yar lépp suñu borom sama la ko jaarale te yàlla nga koy dimbale ba bi ñu ñàkk bi ñu gisatul sunu yaakaar ja tey ëllëg ba léegi ma nga ca loolu te dara delluwu ci ginnaaw lépp dafa demaat ci kanam moom yomb ci moom am ku ko jiite gën a yomb ndax am jàngale moo jiitu tabax tabaxi jumaam moo tax moo tax loolu moom du doon jafe waaye daal waa kër gi nañu ko ci man ci ndaw ci diggu doom ak ci mag moo tax loolu moom mooy xam kam ko koy def comme nii rek dem nañ bay taxawal door a xam ne sëñ Moustapha moo koy def donte nag daan na def yi ci des bi ñuy xëy xaw ma ne woon ni moo koy jiit waaye saa su ne rek bu ki koy def loo bu ñëwee laaxar walay doon ñëpp nañ xam ne moo ko war a mën a def yàggaay gépp defaroon nañ ko ba noppi waaye moo ñëw soppiwaat ko changé waat bañ defaraat ko woon dëppal ñu jamono waaye moom comme que mën a jox yaa koy jox waaye Diop moom entrepreneur boobu moom moo yor liggéey bépp moom waaye la koy defaral daal ci moom lay jóge moom <laughs> moom moom moom xam na ni nit ñi boo bañee am loola naqari moom koo ko mën a jox yaa koy yoral bopp boo amatul kàttan def gi tamit nga koy xool mooy mooy waar bu ca mbagg wàccee na ci bët tege ngay faral di wax lu bari ala muhammadin wasilati laka wali abun alqitami indaka